léegi nag aaya day dugal képp ku laxas di jàngi dugal na ko képp ku wuti xam-xam gàddaay dugg nga ci biir dugg ci biir xam nga lu tax yénti moo wax ne al muhaajiru man haajara ma naa Allaahu anhu ki gàddaay mooy ki gàddaay li yàlla xaaye gàddaay duwul rek jóg dem Makka dem Medina déedéet gàddaay mooy nga gàddaay ba bànneexu bakkan mooy cëpp solo sax te jamono yii mooy gàddaay kon ku laxas di jàngi nekk gune gu ndaw sa morom yaa ngi topp noos ci mbedd yi di def leen neex nga xeex sa bakkan wuti yàlla gàddaay nga moo tax mu ne woo may koo xam ne dafa génn mi mbayti tukkee néegam wala këram muhajirin aji gàddaay ilallaahi jëm ci yàlla yi ak ndawam la su ma yudul ko topp mu dab ko almawtu dee kooku faqat waxaa tabir mu sax na mu ajuróor yolam xan laa ci yàlla waa kaan nekk na ma allahu yàlla xafoora njëggalaa kon rëy man daa ji yére bi ñu ngi jàng nag wàññi julli wàññi julli moom la jàng wàññi julli nag boroom xam-xam bi dañ ci am ay wuute yu bare bare bare bare ci masa bi imam Saafi yu ak imam Malikin ak Hanifa borom bi ne wisaa daratum ndem yéen a ngi dox te at suuf si euh, falaysa aleykum nek di war leen ju naan benn bàkkaar an tax suroo ngeen wàññi min salaati ci julli yi bu ñeent nga def ko ñaar ñaar kenn du ko wàññi ñett kenn ko wàññi mu in xiftum dem ragal ngeen lu ngeen ragal mooy lan ay yaftinakum fitnaa leen da si kafaru ñu weddi yàlla kon na ngeen wàññi julli ga muy ñeenti burut nag ñeenti burut li gën a wóor mooy day nekk juróom-ñaar fukki kilomètre juróom-ñaar fukki kilomètre innal kaafiriina naka yéefar yi kanu nekkoon na ñu la ko ñee leen xaddu noon xaddu noon boo xam ne xaddu woon noon boo xam ne maduwan mu binan noonu bu leer nañu lañu wi taa kunta fiihim nekk nga ci ñoom yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa aqamta la nga taxawaloom ñee leen salaata julli fal taqum na taxaw taifatun mbooloo minum tëgga ci ñoom maaka mu ànd ak yow wala yàq soon nañu jàpp ñeneen ña atlaatum seen gànnaay ya sax sa julli su yoon nañu fal yëkkoon nañu nekk ñoom ña taxaw min yi seen gannaaw foofu nag lu wute am dëgg nag dëgg xam nga ñu liñ mooy rek Euh, ni ko fiqu Malik jàngalee ñu ngi leen ko jàngee ni ko fiqu Malik imam bi ci boppam na xaaj mbooloo mi ñaari xaaj bu xaaj mbooloo mi ñaari xaaj julli ñeent rakkaa la wala bu julli ñaar rakkaa fekk ñu dañuy wàññi dañuy wàññi li mu xale mbooloo mi xool ñaari xaaj imam bi day ànd ak menn mbooloo mi benn xaaj bi julli ñaar rakkaa la am na benn rakkaa lu muy def mbooloo mu njëkk mi day ànd ak ñoom julli gi mat mbooloo mu njëkk mi bu julli gi mat mbooloo moomu dem jënoog noon ya mbooloo mu ñaareel mi ñëwaat ànd ak moom mu jiite leen encore imam Saafi moom loolu la wax moom kon nag koy déggee mooy ndekkee fekkoon ci ñoom masabam bi kuy naafila mën a jiite ku julli farata parce que imam bi julli julli ñaar lam gi naafila la naafila la dégg nga masala bi moromu njëkk dafa ànd ak ñoom julli ñaar ak yi bu ma sëkk moromu njëkk bu dee dañuy wàññi fekk wàññi na mu daf julli ñeenti rakk yi ba ma sëkk mboola mi ànd na moom dem taxaw jëloon noonu yi mbooloo mu ñaareel bi ñëwaat mu jiite waat leen dégg ngeen wax loolu waxu imaam Saafi'i la waxu imaam Saafi'i la kooku benn la ci beneen bi bu xam wàññi la ñuy mu nekk mu ànd ak ñoom benn rakkaar kooku mooy mosu bu imaam Malik muy ngirum Malik bari na ay wute bari na ay wute moo tax borom bi ne subhaanahu wa taala fal taqum taa'ifatun minhum maaka wal yaquzu asli'atahum fa izaa sajaduu falyakunu min waraa'ikum seen gannaaw bu si jotee ngeen nekk nañ nekk seen gannaaw yéen di leen xaar wala taati ñëw. taayifatun uxraa meñ nan mbooloo moo nga xam ne lam yu salloo julliwuñ fa soo nañu julli ñoom mbooloo maa kaan ak yow imaam bi wala yàq soo na jël isroom seen fagoor ak seen ngànnaay ya wadda ndax mi benn mu la seen kafaroo ñu weddi yàlla law taax ba loona seenug sàggante seenug sàggante an alaatukum seen ngànnaay ya ngir te ngànnaay ya fële ñu ñëw jël ko waam jaantukum ak seen bagaar ya fa yemi loona ñu jéng aleykum ci yéen ma le ta waaji tan benn jéng rek rey leen ngeen jeex wala junna borom bi ne déet bàkkaar aleykum di war leen in kaana bikum dem dafa nekk ci asan lor matarin ci taw taw moo leen jot ak kuntum nga la ngeen nekk mar daa daaji feebar anta doxoo ngeen fi mu asliyaatukum seen gànnaay yi ngeen tëral seen gànnaay ya anta doxoo asliyaatukum ngeen tëral seen gànnaay ya bàkkaar na ci wa xudu jàppale xisrakum seen fagooru ca noon ya ñu laa borom bi ada ah waajal na mu lil kaafiri na ñeel yéefar yi asaban mbugal moo xam ne mu xëy nan day doyal ko ñu mbugal borom bi ne bitaa xalitumu salaata dem nga xam ne seen julli gi pare na dey parce que laa na ngeen tudd yàlla xiyaaman bi moom ngeen di way taxaw wala ngeen di way tëdd wala junubikum ak seen yëpp da ngeen tudd yàlla ngeen ko mën a rek loolu borom bi wax subhanahu wa taala xam nga dal li seen kafaro boobu li ko taxoon wàcc yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu xeexee ak bënni maari ak bënni anmaar léegi dafa ànd ak saaba yi bu teg seen gànnaay yi bu tegee seen gànnaay yi yent bi génn soxla boppam soxla boppam dem bu romb xurwa asamaan si di gis ndox di ñeppe ñeppal kol wi xur wi ndox mi xaw a bari yent bi dem toog benn goroon garab ba mu toogee ci roon garab ga li ku ñuy wax xawlaas bu naar seen yonent bi mu ne bu mu ne mu ne yonent bi bu la rey bu mu la reyul moom yàlla ko yàlla rey du loxo yonent bi ba peeku rek dem te fekk mu ngi ànd ak ji te bu muy géej nag bu muy ñaan yonent bi yóbbu ko de daf ko séen rek départ ah yonent bi yóbbu ci dara mu ñëw ba tiim ko rocc jaasi ji ŋaat ko bëcc ko ci mbat li da ko wan ne ko yow Muhammad tey man kan mooy dox sama diggante yow nag kan moo dox sama diggante yow yéen tamit ne ko allahu ne allahuma ikfini qawlatna harbin bi ma chita yàlla fekkal ma xaw xaw sa ibna harbin ni mu la neexee xawrat daanu jaasi ji war di yéen for jaasi ji for jaasi ji tiim ko ne yow xawras kan moo ma fi mu ne sama yow kan moo ci dox mu kenn kenn doxut ci nga jéggal ko bon nag xam nga ndax da nga nangu ne yàlla kenn la yàlla ma mu ne ko déedéet waaye du ma la du ma dimbale ko lay xeex jox ko jaata yi mu ne ko ayoo ah, de yaa looloo jaadu ma gën la moo jaadu léegi nit bi dem nettali ko saaba ya léegi moom mu dem ci mbokkam gars yi ko yaa torox yow lan moo tere nga rey ko. mu ne waat naa ne ba ma ngàttee jaase ji lu ma daane xamu lu ma daane gisuma dara lu ma daane te jëkkoon na ma bu ko neexoon rey ma mais aay bi njàngi noonu wa borom bi ni fisa fisan ma nantum ndem am ngeen kóolute faqimu salaata na ngeen julli yi ca waxtu wa na mu gën a rafetee inna salaata ku julli ka kaana nekk na mu kitaaba nekk lu ñu farataal moo lu ñu waxtul xanaa mu mel ci jullit ñi lu ñu farataal la muy kitaaban maanaam maktuuban léegi nag bi nga xamee ne xare Uhud passé na gaa yi tawat nag li, li. kii nan man de gañ nañ ma fii kii nan man de gaañ nañ ma ku nekk di tawat borom bi ne bu leen tawat nag wala tey ne bu leen tawat fi xaw qawmi ci sàkku yéefar ya in takunu dem nekk ngeen eh, ta'lamuuna de méttullu ngir ne am ngeen ay gaañ-gaañ fii ñoom nekk ñoom yéefar ya yàlla moo ñu ngay méttullu kamaa ñu ngi di méttullu comme yéen te waxtaan jooju yéen a ngi yaakaar. min lay fi yàlla ma laa yarjuuna lu ñu yaakaaroon kon day xam lépp lu mu tan xekk ma di ko xel ci jëfam du juum du jaawale ku ñëw toomatu toomatu ibnu Ubayriq toomatu dafa am dëkk bu ñëw xataadatu xataada toomatu dem ci ne xataad di ko sàcc bu bukkoog ma sàcc bu bukkoog ma pour ba mu ko sàccee nekk mbubu koom bi ci benn mbuus mbuus gi dafa am sunguf ci biir sunguf fa ji nekk léegi tuumatu nag xamoon na mbuus gi dafa mu sàcc mbubu koom bi dem ci benn kër yow ku ñox Sayd ibnu Samin dénk ko mbubu koom ba xataa dina ko yaa sàcc mu weddi ko léegi nag ñu ne kon day topp tànki ki ko sàcc day topp tànk li ko weer mooy mbuus gi mbuus gi mbuum mu nekk dafa am sunguf sunguf si sottee ko nag ci yoon ñu topp ko ba ci ko léegi ñu laaj mu ne mooy leen euh, toomatu ma ko fi andi xam fan la ko jëlee waaye toomatu ma ko fi andi ñoo toomatu mu ne déedéet du moom yoon bee ko sàcc ñu ay mbokk mi mbokk yi toomatu yi ne toomatu wax na dëgg yoon bee ko sàcc da ko bëgg a taqal léegi nag yonent bi ne kon loolu demee kon nañ jàpp yahud bi yonent bi ndax ci moom lañ ko fekk moo tax yàlla wàcc aaya bi ne ko déedéet sàcc ko de ne mbokk tuuma yi nag fi nga toll nii tey yéen a ngi layoo tuuma nekk aw kaam bu yomal xayma kan moo koy layoon nag moo nekk ñun nag mooy soo ko dusoon moo tax borom bi ne subhanahu wa taala inna ñun sa borom anzalna wàcce nañu ilayka ci waaleyka salaatu wasalaam ak kitaaba téere bii di alquran bi daxtu mu làmboo dëgg li tax kuma ngir na nga àtte benn naa si diggante nit ñi bi maa ca la nga xam ne alaaka war na mu la ko mooy xamal na mu la ko allahu yàlla wala takun bu nekkee dil xaay niin ñeel wuy yi xasima daa ji xuloo leen bu leen xulool bu nekk mukk nag wa taxfirillah na nga yàlla subhanahu wa taala inalaa naka borom bi kaa nekk na mu xafaroon jéggalaa kon rëy man di aji yërëmi wala tujaadil bu dagg wante ani lesiina walis ñi nga xam ne yaxtaanoo na ñu ngay wuruj am fasum seen bopp te mooy tuumaaki mbokkam inalaa naka borom laa bi du bëgg man ko nekk na xawaanan ku bëri wuruj wuruj na ñeenti yoon kay sàcc na wuruj la tuumal na yowoot bi wuruj la géñ ci fen wuruj la seet na ay caaxaan wuruj la xawaanan asi man de ko mën a bàkkaaru borom bi ne yax tax foo na ngi tax koo nëbb ñoom mi ne naata ci ñi moom tuuma ak mbokkam ya wala tax foo na duñ nëbb mu ne laay fa yàlla woo moom borom maa mu ñoom isi yu ba ñu fanaan di nëbb maa laa xam ne ko moom bi mi ne xaw ci wax wax joo xam ne ngi ñett caaxaan la fa kaa nekk dama allahu yàlla muhiitan daji peeg daji xam ma yaamaloona la ñuy jëf borom daa antum awlaay e yéen gaa ñii yéen mbokki toxma yi jadaltum yéen ngay xulool tuxma xanu wadil leen yéen koy xulool de fi layaat dunya fi layaat dunya Ah, ci dund àdduna bi fa man yu jaadilillaaha ana kan mooy dàggawanteeg yàlla an wali leen yawmal qiyaamati kenn de bu koy mbugal ana ku ñëw naan ko nangam ak nangam borom bi ne am man yëkkoonu ana wala kan mooy nekk alay ñoom wakilan de aji kenn wa man yaxmal ku jëfandu mu soon ñaawteew ak yéex li wala mu tooñ nafsoo boppam su ma yastaxfirillaa mu jéggalu yàlla yàlla xafuran mu nekk jéggalaa ko rahiman daa ji yërëme kon na ne fàggandekoo na isman bakkaar moo ko tey fay na ma yaksib fàggandekoo na ko ala nafsi ji boppam borom bi ne ko musiba wa ca kawam la jëm aka nekk na mu allahu subhanahu wa taala aliman ko xam bindee fa mi yàgg man ko xarañ du juum du jaawale o man yegg cib koo xam ne faaga ne ko na xatiyaatan ñaawteef bu ndaw aw isman wala bàkkaar bu mag a mag a mag su ma mu daldi sànni bi ko gàtt mu booxtaanan ay nar yu rëy rëy li man mu bindal ak bakkaar boo xam ne bu mag a mag a mag la wala laa fadlullahi fekkoon dugal lu yàlla alayka ci yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa rahmatuhu ak yërmandeem la amat wala itoloon na taa yakutun am mboola minum tu ke ci ñoom bakk tooma ya an ñu dilloo ko ñu sànk la wa maa yudroona waaye duñ sànk daa anfusum dara seen bopp wa maa yudroo nag ñu la wàññi mukk nag mi seen ci dara min baa ko ndollante la borom bi ne waaye tar wàcce na ma allah yàlla alayka ci yow ak kitaabu téere bu tedd bi wala ka mata ak àttee ji nekk wàllam nga xamal la moom borom bi subhanahu wa taala maa la takun loo xam ne nekkoon taala mo di ko xam mukk nag nag wa kaana nekk na fadlullahi ngëneelu yàlla aleyka ci yow sallallahu alayhi wa sallam ase man dalu màgg màgg borom di laa xayra déet benn yiw fi kasirin ci ñu bare bare min najwaahum seen diyalee illaa najwaa mu ne illaa man rek nga xam amara bi sadaqatin dafay digle lu baax aw maarufin wala muy digle njëkk mooy jëf ju baax aw illaa bay ni naase wala muy digle digal defar diggante ay nit aw man yafa yafa bu defee musa ko loolu ngir def ko nag def na ibtiqaa madatilay sàkku ngër mandi yàlla wutu ca du ngi tan du ndéggatu bëgguñu fay ko ca dara wasa wa yuti xes na mu koy jox subhanahu wa taala ajranaati man fay gu màgg màgg màgg borom bi ne wa man yusaqiqil rasula koo xam ne dafa wuute yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi badi ma tabee na a ba leere loo ñeel ko raw daa njub gi ku def loolu borom bi ne kooku nag way tabe mu topp xayra sabilil mu'minin yoon woo xam ne nekk yoonu jullit ñi nu walee dañ ko méngale ma tawalaa mu méngoo la mu yelloo dañ ko jox ñun borom bi unu lii dañ ko tàbbal jahannama borom bi ne na wasaa ban na masiran ci mujj ne laa na bokkaale waaye li mu faqat dana sànq na mu dalaalan bàyyi dan sànq di koo xam ne bu solee sori dëgg la borom bi ne ñu doon ca dëgg-dëgg daal ñun jaamooñu mi doon si yàlla illaa inaasan daraa jigéen dong la ñu jaam boo xoolee bi mu ci ba ci biir laataak moo saak mën naata ay jigéen la dul waaye in ñu doon na jaamooñu ñoom yéefare illaa saytaanan maridan dama si ànd waxee dafa fectorlu génn topp laa noo rabu na mu ko allahu yàlla waxaala wax na moom seytaane ne la attaqistanna dana jàpp man seytaane mi ne ba rek sa jaam ñu nasiban ak ceeb boo xam ne mafrudan buñ dagg tàppi la ma woo leen ñu topp ma mafrudan léegi nag borom xam-xam ne nañ mafrudan bi mooy baax su naari ñu ne ko mooy lan mu ne junne bu nekk kenn cee dugg àjjana lu naqadee dégg la yénti moo wax ne ma antum fi ma siwaakum lekk santil baydaa fi sawri al aswad mooy yéen sama xeet wi ni ngeen a nga mel ni benn kawar bu weex ci njëñ lu ñuul ci njëñ lu ñuul indi bi la la wax yomal xiyaam suñu borom mooy wax suñu maam Aadama ni ko aadama axrij min xaw min zuriyatika bax mu ne ko yaa rabbi uma bax su naar mu ne ko axrij min kulli alfin tisxa miatin wa tisxatan wa tisxiina daf ko aadama sa gi ni ci génne bax ne ko lan mooy bax su naari mu ne ko bu nekk nañ ci jël junne bu manqué benn na axraj min kulli alfin ci mi'atin wa tis'atan wa tis'iin junne bi nekk génne ci juróom-ñeent téeméer juróom-ñeent ko juróom-ñeent mu des kenn moo tax yonent bi ne kon nag yéen a ngi leen jiitoon yéen nga mel ni njañ ñu dugg benn koor bu yox ci mooy kenn mooy mooy kenn mooy kenn moo tax xeetam yi ñu am yaakaar lañ ñu am yaakaar lañ ñu am yaakaar nañu ngir lan inna laa yaxlu sunuba jamian inna laa yaxlu sunuba jamian aaya bu yaakaaru la bu yaakaaru la ak eh? wala sax bu yuuti kala bu ko fa tardaa ñaari aaya yu am yaakaar a ngi noonu moo mu ne kon ne mafruda yow ma wala uddalin wala uddal wala wala uddilannahum dina mu sànq dana ma sànq leen wala umaliyannahum daa leen mébét loo bëgg xalaat rek gudd fan rek yal naa fi yàgg yenna naa wér yal am lii yal naa am lii ba kañ wala umaliyannahum mébét rek ci xol yi xol yi rek di mébét di mébét ba tal sa boroom bu doo tal sa borom mooy garaaw nag wala uddilannahum xam nga lu muy tekki mooy dalaan sàkk bu duñ nangu dëkk man di juppal rek yow da nga ñàkk fayda lii bu man la eh yow amoo fayda man lii bu doon man duma ko nangu wala mu bu doon man dinaa ko def ñaar yooyu na ngeen bàyyi ko xel trop trop trop bu doon man duma ko def wala bu man dinaa ko def bàyyi leen ko tam ba na ku la wax bu doon la muy wax du ko def mu nekk ñi nag mu uddi lan noonu daa leen sànq du fi nangu dëgg ma def seen xel yi jaxle ko wóoloon du ko wóolu ko wóoloon du ko borom bi ne wala amurannahum dana ma digal fala yubati kan na wala amur ma digal leen digal fala yubati kan dana ñu njoof dañ dëkk asana anaami noppi jur yi comme bayira yaa yu mel noonu yow ma ca wala amurannahum dana ma digal leen fala yuqayiran na daf ko def mbooloo de fala yuqayirun na la wax dañ toppi ñoom ñëpp xalqalaa yi yàlla bi mooy diine ji daganal lu araam araam ma lu dagan dem ba yegg ci xeesal nag ñu dugg far nga weex xalqalaa yi dugal lu yëpp lay dugal la yàlla daganal nga xaraamal ko taxaw fu dëgër dama xaraamal nga daganal ko borom bi ni wa man yettaxis koo xam ne jàpp na mu seytaan wala yéen mu nekk di waayam min doy naa wala yàlla faqat xasira perte na mu xusraan mu binan perte gu leer nañ yaiduhum mooy di defal moom seytaane gudd fan yu man niihim ma dina mi belloo rek mi belloo rek adduna bi te wa ma yaiduhum daxalu leen seytaanu ila xuróoran lu muy a naxaale ak naxaate walaayika ñooñu ma xam seen tafuwaay la wala yi ji doon du am xanaa wala si jahannama isan benn jénguwaay wala si ne gaa ñi xam ne amunoo ah, gëm nañu yàlla wa amilu saalihaati te ñu jëf lu baax ñu ne ah mooy sa du dëqluhum daañu leen a ñu yàlla jannaatin àjjana yoo xam ne te jëri dina mu daw min tata boo ca suufam al naaru ay dex xaalidina ñu du way biyel fi aji àjjana ya abadan faw borom bi ne wadallaahi muy dëxal yàlla boo xam ne dëxal na ko masdar la xaqan boo xam ne it yellal na ko ñaari masdar la ñu borom bi ne woo man déet kenn kenn a taxu gën a dëgg mi ne laaj yàlla kii lañ ci wax lu mu wax dana ko def ko dëggu wax borom bi ne nekkul seen mébét yéen jullit ñi wala amani yi ahlil kitaab yi di caagi mébétu ñu ko céere man yàmmal ku jënum soo ñaawteeg yu ca bii fay ko ko de ci yawmal xiyaamati dañoo dañoo xuloo woon ahlil kitaab ni ñoo gën diina seen diina moo njëkk kon ñoo gën diina yu jullit ñi ñoo gën diina ndax gëm nañu seen téere gëm suñu téere gëm seen yonent gëm suñu yonent ñu xuloo borom ne nekkul foofu nag mu ngi ci jëf-jëf ku def lu ñaaw ñu fay la ku def lu baax ñu fay la man yaa ma soo yu sëb léegi nag bi ay bu wàccee Babacar Siddiq dañ ci yonent bi ne ko ana kan ñun moo dul juum Babacar Siddiq ku dul juum ci ñun amul ku dul juum ñun amul te ku jàng xam nga li li li ci tek wax teg teggi la borom bi wax teg teggi man yaa ma soo an kon man ba xam nga day jësam day jësam ñaari feer yu sëb yi bi man biir mu mu dañuy sax ñaari feer bu njëkk bi feeru sàtt ñaari bi jawab ak gesa kon may xamal soo ko def ñaaw teef rek ñu cëb yi fekk ko léegi teg teggi rek daa ba ko yéen bi ku ko àttan teg teggi àttan nañ ko yénte bi ne ko mooy li waxoon léegi Babacar mu ne ko naan mu ne ko ndax doo feebar mu ne ko a ah, kay ndax doo fa ah, la jàmm mu ne ko a ah, kay mu ne ko mooy loolu te yow bokk ci sax yow yow fa yow bokkoo ci bokkoo ci yu sa bihi la nga def ci ñaawteef la jam effacé na la nga fa kastalu paaka dagg la lañ ca dagg la yu sa bihi mu ne ko nag nga xam ne bala nga dee yegg sa borom dootoo am benn bakkaar mu yu sa bihi ko yow sax bokkuloo ci nag wala yi borom bi ñu do am loo ñeel ko bi doon lay wala yàlla aji méngoo wala sa jàng aji dimbale ba mu yemoon koo xam ne na jëfandu mina saalaati tukki ci yiw yu baax yi min zakrin laa la moom dafa nekk góor aw sa wala mu nekk jigéen ote moom ñun aji gëm yàlla la fu laa la dañu dugg aljanat waaye su ma leen gottil naqir toll ni naqir kenn du ko wàññi seen jëf ndef si muul xool muul xool ko tàndarma bi kenn du ko ci ñoom de bu man ahsan kenn di gën a rafet diina diina li man koo xam ne aslama jébbal wajhu anamam lépp la jox borom bi mooy wamatu na jëlaay ngir yàlla woote muslim aji rafetal muy wetal yàlla wa tabaa mu topp milita ibrahima topp dina ibrahima ji hanifan mooy jëng bàyyi bépp ndëng topp njub wa taxasa jàpp na mooy mu jël ma allahu yàlla ibrahima mii mu nekk xalilan di xaritam wali laay sax na ñeel yàlla maa fi samaawaati juróom-ñaar wa fil gi duufu juróom-ñaar wa kaa nekk allahu yàlla muy tan aji fekk bu seen lépp lu mën a xam ne ko moom borom bi mu ne ko wa yastaftuunaka ay tax ko ubbeekulu la fi nisaa ci mbiru jigéen ñi xul ne leen allahu yuftikum yàlla moo leen di ubbi fii hin ci ñoom jigéen ñi wa ma yulla an fi jàngeef ne ko aleykum ci yéen fi kitaab bi ci alquran ji ci aaya bi nga xam ne moom la jàng borom bi de subhanahu wa taala muy aaya bi naan fi yataama nisaa yi ci ji jirimi jigéen ñi allaati yi nga xam ne laatu toonawun na du ngeen leen jox maa la nga xam ne ku tiba farataam ne ko la woon na ñee leen ci miraas ba way tarxaboona ngeen de sib nag ngeen sib wala ngeen bëgg en tant que en tant que ngeen denc leen baatu raqi ba xam nga ci grammaire da jël ko ci xan wala fii léegi boo ne raqibtu fii mooy bëgg naa ko boo ne mooy sib ko moo tax borom bi nag indiwul fii benn araf xam nga lu tax ko waral yéefar yi dañ daan am jirim ci seen kër waxoon nañ ko démb bu bëri xalal lool ñaaw lool ñu bëgg xalal yi waaye bëgguñu bëgguñu jëmm ji kon sib am na bëgg am na moo tax borom ëndu fi benn xaraf ba tax xamoo na fekkoon def ne fii an tan ki woowun na wala xan day fi tekki bëgg wala sib léegi nag bu la neex nga fi ngeen sib leen ngir ñaawaay ba ñàkk solo ba ngeen bëgg leen ngir ala jàktaar ba an tan ki woowun na ngeen denc leen wala mu taddaa fii na ak ñi nga xam ne mooy xeet li ñuy euh, lottuloo ñi mi ne daa jëqale yi borom bi ne mu digal leen borom bi wa an taqoomu ngeen taxawle yetaama ñaa jëlim yi bil ci mandu ma tafoon lépp loo xam ne def ngeen ko xëy ci yiw fi ñu laa rek borom bi nekk na mu alim daja xam bii ci la ngeen def ma jox leen ko fay borom bi wi nimraatun ndem nga xam ne jigéen nag xaafa dafa ragal mbalaa jëkkëram lu ak foñ bu dee jëkkëram moo ragal ci ak foñ aw iraajin aw iraajin wala du mooyu falaa junaaha jël bakkan alayhimaa de war ñoom ñaar an yastaalaha ñu yéwénoo benn machine digg dusulan ak yéwénoo nag te wasulu yéwénoo bi xayrun moo gën ne waxuj rat te jëf na am su bakkan a nay bakkan dafa bëgg dafa bëgg alal moo tax jigéen ji ak ndaw jëkkër ji mënuñu kon nañ def maslaa mooy ndaw si na jotu na sumeeku ñoo jëkkër ji li ñu ci moom rek mu jeex jàmm na ñooy gannaaw jëkkër nangu la fase nangu la fase ndax bu fase rek day ñàkk téeméer junni yi mu ci da koy ñàkk moo tax ngoro gu seer gën naa bàyyi xel ngor jafe-jafe yi bari la koy waral ngoro gu seer lool te jigéen ak mëntoor a yem jigéen ak mëntoor ñoo yem seer taxu da baax yomb teroo teru la baax ñett ñoo yem ñett bu seer te du am heure mukk du am heure mukk moteur bu yomb te moo te am heure jigéen noonu la noo xam ne musiba la <laughs> nga du ma la nga ci dem ñëw bu la bi ne ko nag maslaa bi mooy ndaw si nañ al uns al ansu asuxa bakkan nañ ko tëj ci nay te it nag moo yellu moo yellu mu nay nag borom bi ne wa in tu'sinu bu nga defal la rafetalee seen àndante ba te taxoo ngeen teet li nga xam ne mooy jeng ga fi ne laa borom bi kaa nekk na mu xabira ndaa yi dañ gompa ma taxamuloo na la ngeen di jef te nag xam na walan tastadion di nga attan walan tastation ante du ngeen dal di mandu euh, bañ a ñesaay diggante jigéen ñi wala waratum dante xiir ngeen waaye dal li mu ne mën a xamal falaa tamilu bu leen jeng ku lal may li bépp ak jeng bu leen jeng ba daanu nag ku lal may li mooy daanu bu leen ko def kat leen ko def kat bu leen jàng ba daanu fa tasora ngeen bàyyi kenn ka kan mu àllaqati kom koy xaj ca benteng ba ci fa ñu xaj ndab ya dem ci waañ wa def benn tóoj xaj fa sa xaj fa sa bagage kooku mooy mooy benteng ndaw si nga xam ne nag da nga ko yor bàyyi ko complètement tongoo ko muy mu àllaqa mu ne bu leen ko def lu ngeen jéng-jéng kay bu leen yegg suuf nag ku dal may li ëpp naa def moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu daan jënd ñëpp a yemle ñëpp a yemle muy sama borom nag li ma moom joxe naa ko ni ma ko sante waaye li nga moom yaa ko jox ki la neex muy xol bi neex bi doon bëgg loolu la nag mu ne ko Aysa moom yaa ko jox sama xol bi su ma yenn waaye li ma moom man daal yi ñoo yem yére ñoo yem ku nekk dana la jox la nga yelloo ci li moom li nga moom yaa ko jox ka la neex yaa ko jox xam nga lu tax menn maïs la am ci jigéen joo xam ne jànq la menn maïs ku dul moom dana takk ngir maslaa mosu takk kenn kenn kenn ngir àdduna xam ne bu ma takkee kii rek mbokkam mi daa am ñoom jàmm mu takk indi moo tax mu jàmm ak ñëpp jàmm ñëpp gorom lañ ñëpp lañ waaye màkk yëpp mbokk yonent bi waaye kilifa yëpp goro yonent bi ni koy defati <laughs> ni koy defati moo tax Aysa dong la takk ci mu nekk gune ba mu amee ko takk juróom-benn at bàyyi ko am ko dugg moom nii Aysa waaye fekk nañu am ba pare moom la gën a bëgg la gën kal mu àllaqati mel ni ku ñu aj ca kaw sànni ko waxoon nañ ko fi mooy ki nga xam ni dafa am ñaari jabar kenn ki nag tànkam bi nett dagg la natt dagg tànk bi natt dagg la kenn ki moom tànk bu tuuti la yore waaye kële moom amul numéro natt dagg rek tànk bi 45 ko jotu ko fukk day <laughs> waaj kii dafa daal rek ne ko tànk baa ngi nii nattal mu natt ne ko waaw lii la mu ne ko liggéeyal ma daal tànk bu gudd la yore keneen ki tànk bu ndaw la yore ah jëkkër ji dem di xotti ji xottil njool mi juróom benn mètre xottil ku gàtt ki ñeenti mètre utal ku nekk dàll yu jot yu yem ci yow nga di teg ba ñëwee ndaw si ki gën a tuuti ne ko lu tax nga jox ko juróom benn man nga jox ma mu ngi ñëw nga jox ma ñeent ah jëkkër ji ko déet yow ñeent moo la jot di kay juróom benn ko jot moo ko déedéet jox ko juróom benn jox ko juróom benn jox ma juróom benn wala nga jox ñu ko ne ñeent mu ne ko waaw loolu du ñu boole jox leen piis gars leen piis yi jox ko mu dem yóbbu dàll ya ba mu yeggee côté ku nekk juróom benn mètre dàll ya yeew ku ne mu indi woo xam ne dal yaayam ñett dal ba mu joxal jox ndaw su rëy la xotti ndaw su ku gàtt ki jox ko juróom-benn meetar jox ko dal yi koy def fu may yi dal yi sol ci sama bopp bi mu ne ko fi ngay def benn meetar yi def fa dal yi yàlla yéen a yem de dafa jox naa ko juróom-benn meetar nga bañ kon nag ku ne juróom-benn ku ne 45 ku ne 45. ndaw si ne ko mukk mu ne ko bon na xoolal def ci la jàmm amee de ne ko bon na waaw léegi kon d'accord naa wutal ma ñeenti mètre jox ma dàll yem ci man <laughs> moo tax moo tax borom bi nii fi ne laa kaa nekk na ma xafuroon jéggalaa kon rey man di aji yërëmee wa in yettafarraqa nim tàqaloo ko nañu ñoom ñaar yox ni laa ko ma yàlla ko leen ku mujj min saati yi ca ngëñëlam ba kaa nekkal ma allahu yàlla waaye seen ku yaatu ngëñël xakkee mu ne ko xereñ borom bi ne lillaahi wa lillaahi sax na ñeel yàlla maa fi samaawaati yi asamaan juróom-ñaar wa fil ardi li ci suuf juróom-ñaar ndax wasay naa dénk nañu les yéen ñi nga xam ne ootul kitaaba joxe na leen téere min qablikum ne leen jiitu woon wa iyaakum ak yéen ñii lan mooy dénkaane bi an eh, yéen ñëpp ittaqoo laa ragal leen yàlla waan takfuru ak it na ngeen weddi bu leen weddi wi takfuru waaw in ngeen baal ndem weddi suñu borom bi fa inna laa naka borom bi wala fa fa yénn li laay sax na ñeel borom bi ma fi sama waati asama juróom-ñaar wa fi la addi al gi suuf wakaa nekk na allah yàlla xam ni yéen du ko jële wali si jàmmam yi hamidan ku sant ca kaw suuf ma mahmud la wa di laay sax na ñeel yàlla ma fi sama waati li asama juróom-ñaar wala fi la addi al gi suuf wa kafaa jot na bilaa ci yàlla wakkilan ci aji seede seen mbir in yasab ko neexoon yusikum mu demee leen ayyuhan naasu yéen ñëpp ñëpp yaatum ñëwe bi axiri na ci ñenent ko wàññi dara wakaane nekk na mu àllaahu yàlla ala ko sëyin ala nekk na mu àllaahu yàlla xajirin dajaatan ala salik ci loolu de man kaane ku nekk na yurdu bëgg na mu sawaaba dunya yoolu yowmal qiyaamati fajara mu ngi fa yàlla nekk na fa sawaaba dunya wal axirati ak bu yowmal qiyaamati nekk na fa kaa nekk na mu àllaahu yàlla samian aji dégg ba sin aji gis sadaqallaahu al-aziim wa balaqa rasuuluhu al-kariim